da damay rappeler rek ni affaire du parrainage dafa nekk une honte nationale maanaam euh, rafetul sax ci suñu institution yi wala ñi nga xam ñoo jiite suñu réew parce que ku mel ni président Bougane. mais dëkk yëpp am parrainage en non non waxuma parrainage en tant que tel principe parrainage comme filtre dama ni reca méthode bi ñu recalé le président Bougane ci élection yi à deux reprises képp kuy sénégalais jàpp naa loolu war na la ticket. pourquoi chaque à chaque fois président Bougane rek la ñuy tudd ci parrainage pourtant ñiy éliminer bari nañ de c' est parce que sénégalais dans le subconscient nanguwuñ ni le président Bougane dafa am problème parrainage. moo tax moom mu war a régler problème boobu parce que bët rek natt la xam nga tey ku mel ni président Bougane man man mi koy côtoyé xam naa ni am parrainage matu ko benn ngont en une demi journée mën na am trente cinq mille parrains cinquante mille parrains ñun ñi ànd ak moom rek mën nañ am cinquante mille parrains a fortiori le président Bougane. boo xam ne il a parcouru tous les villages du Sénégal les quinze mille villages du Sénégal nga xam ne fépp foofu ci dem rek am nañ fa ay répondants am nañ fa ay points focaux ku mel noonu tey mënuloo ko téye nga ne ko da am problème parrainage le nombre de villages que compte le Sénégal bu ku nekk joxee trois parrains trois trois cartes d'identité mu matal parrainage tey yan yan alibi lañ teg pour ñu mën ñu recaler ci parrainage dix neuf mille personnes yoo xam ni dañu voté woon il y a six mois sept mois ci local yële passé dañu ñëw ci élection législative ñu ne ñii ay non électeurs lañu génne leen seppi leen ñu dem yóbbu seen i pièces d'identité mu am numéro électeur xanaa kay ku nekkul électeur doo am numéro électeur hmm. doo am circonscription doo am numéro bureau de vote ñu yóbbu leen conseil de conseil constitutionnel ba nii répartir lu ñu ci suñuy droit c'est parce que dafa am une volonté manifeste hmm. du chef de l'APR de nous éliminer à travers un mécanisme qui s'appelle parrainage parrainage loolu rek moo taxoon mu teg ko voté ko à l'Assemblée nationale dem toog France ça passe ou ça parce que dafa am ñoo xam ni mënoo leen éliminer par voie judiciaire parce que ñu ci alalu askan wi mësuñu gérer ay deniers publics mënoo leen toppee lenn parce que ay citoyens yu clean lañ te dañoo am droit aussi laaj réew mi seet loolu moo tax le président Macky Sall instauré li ñuy wax parrainage mais dama jàpp ni le parrain parrainage mm. ñun si suñu bopp sax dañu jàpp ni filtre la boo xam bu baax la mais dañ ko revoir ñu xool ci yan mécanisme ak yan méthode que tout le lay lay doxee mais président Macky Sall bu fekkee dafa am volonté wu teg parrainage ba pare ànd dëppoo ceeg tous les acteurs dañu war a dem vérifier logiciel bi sur la base de quelle instruction lay fonctionner lan moo nekk li nga xam moo nekk ci back back office bi nga xam ni bu jëlee parrain tel ñan la ban la ban base de données la koy compareel loolu war nañ def audit li nga xam mooy logique bi euh, logiciel li ngay wax ni dafa am mais ñun dañu jàpp ni hmm. le président Macky Sall xam na li mu def bu bëggee rétablir la situation comme dafa waxoon ni moom nekkatul ci njuuj njaaj bu bëggee rétablir la situation à la normale xam na fi muy jaar ba teg merci beaucoup beneen bi mooy dafa wax ni le président Bougane mos ñu ko gis mu defendre de manière pointue sa position par rapport ak parrainage bi il l'a fait à maintes reprises mais dama jàpp ni fi ñu toll tey waratuñu jël xar mi di ko yokk karaw maanaam di di jël jeter l'huile sur le feu parce que jàpp nañu waratuñ def l'apologie de la violence. non pense pas c'est pas parce que dañu war a wàcc ci mbedd mi rek. rey ay xale moom mooy taxaw xeex farouchement. non j'ai jamais je il y a yoo xam ni ñoom ñoo gën a yell gën a jaadu ñu dem xeex fa parrainage bi tey dama jàpp ni tey mm. démarche bi nga xam moom la initié dem gis suñu chefs religieux yi et les chefs coutumiers mm. waxtaan ak ñoom ci situation réew mi ak seen responsabilité ci waxtaan ak le président Macky Sall pour que mu revenir à la raison. mu defoon la même chose pour parrainage bi. moo il a fait la même chose il l'avait fait avec le parrainage wax na ci waxaat ci waxaat ci. mais dañu jàpp ni fii ñu jëm nii le peuple sénégalais mooy nekk sunu conseil constitutionnel. fi ñu jëm nii le peuple sénégalais mooy nekk sunu DGE fi ñu jëm nii le peuple sénégalais moom mooy nekk peuple bu souverain. moom mooy décider de